ndax murid bu ne bu sañoon di la déglu nga def taalibe bu baax fab sa lépp jox Sëriñ Tuubaa te bëggoo ci dara euh, ñi gën a gëm sëriñ bi yàlla dina la caa dimbali nga bokk ci ñu ngi la ciy sant bu baax te am mbégte njabootu baay moo naa la bisimilah dalal xëy na tey mooy sa njëkk nga ñëw teew ci bis bi waaye ñu ngi ñaan muy téeméer at du tàmbali ren yàlla guddal sow fan te wéral la tey yokk sa xam-xam te barkeel ko wéyal waxtaan wi jox sëñ Gana te maa sa déglu ko. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi. dolli ko kàttan ba mu mottali mbooleem naal yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon yépp naal nañu ko te naal ay naalam àggale ko di dolli ñaan ci Cheikh Seydil Makhtar ñaan yàlla sunu borom dolli ci moom ngërëmam te taas ci barkeem di nuyu bokk yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo woote bis bii di bisu sant Cheikh Mouhamadul Mamoun di tàmbali sunu nuyoo ci kilifa gu baax gi nekk ci biir di Sëriñ Moor di jaarale nuyoo njaboot gi ci Sëriñ Moodu mi nga xam ne at yi yépp ñu ngi jokkoo ngir sunu teewaay ci bis bi te yàlla dogal ko ren nu mën koo wuy si ñu ñaan yàlla bis bi ngeen yàgg koo woote te jëf yin ci jëf yépp daje ngërëmul sunu borom di nuyu bokki taalibe yi fi nekk yépp maa ngi jàllale nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Babacar mbay dana ma ko mën jàllaleel ndax moo may gën a mën a ràññat la ñi fi nekk moom it muy nit ku baax di sama soppe bu yàgg boo xam ne booba yàgg na te waxtu wu nekk mu di ko feddali di ko yeesal ngir ak bëggam sëriñ bi waaye ak yiwam ak bu baaxam kon yàlla yàlla dëgëral la bu baax a baax te kattanal la moo ngi sant yàlla bu baax bi mu nu mayee euh, tawféex defal nu ndimbal ba ñu mën a ñëw ci jataay bu am solo bi di jaajëfal sunu way jur bi nga xam ne moo daaneel kàddoom léegi di alxaaji Muhammadul Maamun Amar di ko ñaanal yàlla sunu boroom kàttanal ko te wéral ko ndax mbay mi muy bay ci toolu lislaam bi rafet na lool mu boole ci nag ak woyof boole ci ak laabiir boole ci ak baax bari na béréb yu ni daje loolu seetlu nañu ko ci moom te ñoom suñuy kilifa lañ kon noo ngi leen di ñaanal yàlla lu yàgg suñu kanam te wéral leen jataay boo am solo muy jataay boo xam ne jataayu sëriñ tuubaala ndax bu nu tuddee sëñ Mahamadul Maamun da ngay tudd Cheikh Seydil Maxtaar te boo tuddee Cheikh Seyd al Maxtaar tudd Cheikhul Xadim Serigne Touba moomu nga xam ne ak defaram ak jagleem <clears throat> ak i mayeem moo yaatu ba daj fépp te du jeex mukk te du du fa jëkk di barke boo xam ne dafa waxal boppam ne ni yàlla toll ni la barke bi toll ba noppi sax nag ni yàlla saxe barakati waasiatun wa baaqiya baqa umul ku di hibati safiya sëñ Tuubaa nee na sama barke barke bu yaatu la waaye barke buy sax la dafay des desub ni nguur yàlla gi toll nga xam ne diirub suñ boroom a ngi fi nguur yàlla gi fi nekk barkeb sëñ Tuubaa bi di fi nekk moo tax sëriñ Tuubaa wax ne lam yabqa fil xalq siwaa man yatlubu barakati waqad ataani matlabu Sëriñ Tuubaa nee na desatul ci mel ni mbindeef ci kaw suuf ku ko yëg ak ku ko yëgul nee na koo seen muy dem rek sama barke lay sàkku sama barke lay sàkku lam yabqa la wax fil xalq siwaa man yatlubu barakati desul ci kaw suuf kenn ku sàkkuwul sama barke daal di wax ne wasala lii qatan jazaau la mu xal muxalladan bi qadri datillah agsi na ci man payug yàlla gi ba noppi toll ni yàlla sax fi du fi jóg kon loola moo tax mu sañ wax loola am man-manum nag mépp mbir bu ca waxee suñu boroom def loola muy barkeel ko mu di koo xam ne it mënees na di ci jàngat jamono bu ne Cheikh Ibrahima Diop al-Mashali daf ko wax ne ko alam tara anna allaha ataaka rutbatan aqaribuhu taxlu biha wala baadu mu ne ndax gisoo ne sëñ Tuubaa yàlla daf ko jox maqaama moo xam ne martaba moo xam ne ñi ko jege di ay bokk jariñu lañ ci ña ko sori di ay jàmboorit jariñu lañ ci aqaribuhu taxlu biha wala baadu ay bokkam yépp yëkkatiku nañ ci nii ko yàlla def waaye ay jàmboor it yëkkatiku nañ ci nii ko yàlla def mu ne mooy koo xam ne it <clears throat> moom Cheikhul Xadim fa ma min muridin yabtaqil wasla duunahu diwaasi aman ma in lahu dahar xaayidu mu ne amul kenn ku bëgg a egg ci yàlla nam caa dem won ginnaaw sëñ Tuubaa te meluloo ni gumba gu amul njàccaar lu ko womat nga xam ne aji namm yàlla ju nekk dafay tegtaloo ci moom ndax sëñ Tuubaa bi muy yàlla yàllay kese rek la woote waxul lenn lu mu adressé boppam walla mu dàkkante rek boppam bi mu ñëwee àdduna it fekk fi cër yi li muy bari bari ñii tudd taaju nangam ñii fardu nangam ñii sultaanu nangam ñii aarif nangam ñii bu nangam moom dafa teg tànkam ci jaamu yàlla ak liggéey rasulullah muy al ibadatu wal xidma tax mu tudd abdullahi wa xadim rasul Abdullahi wa Xaadimu Rasuul nag day dara ji yu tori ndax xam nga sëñ Tuubaa ay turam day ay mbóot Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Abdullahi Abdul Xaadim Ahmadu Bamba takk ndeer la Xaadimu Rasuul jëmm la Abdullahi xel la Abdul Xaadim ruux la ni tur yu wutee sax de la dimension murid yi wutee bi am na murid yoo xam ne ci Ahmadou Bamba la ñu nekk. mooy doomi sëñ moo Anta Sali la moo gënee jamono Mbacke ba Mbacke Bawal moom la tubaab bi yóbbu woon ci géej gi ñoo ñoo toll ci Ahmadou Bamba. am nañu góorgóorlu ba ñëw ci Xaadimu Rasuul mooy lim la géel yorente bi lim ko tagg kenn taggu ko Abdullahi am na ñu fa ne nim jaamoo yàlla kenn jaamoo waaye li ñu tudd kékk. mooy Abdullahi wa Xaadimu Rasuul loolu ku fa yegg rek da ngay plafonné sëñ bi rek ngay. loola nag lu ci nekk ay jéego la bu fekkee ne dañuy wax baatub xaadimu rasul xam nga xaadim xaadima ko gën a yàgg boo xoolee ci téere naar yi danga ca fekk turu xaadim waaye kenn ku tuddu xaadim amut ku dul Seexul Xaadim xaadim moom mën nga ko fekk feneen waaye xaadim Sëñ Tuubaa rek ko tudd la cay tax a yegg yi nat nattuwaay yan koy natte ndax bu dee ci yonent bi am alayhi salaatu wasalaam ñi ko doon liggéeyal ay xuddaamam ñu bari lañ mel na ni anas ibnul malik moo ca gën a ràññeeku nga xam ne ibnu shihab nee na bi muy ñëw ci yonent bi fukki at la am liggéeyal na yonent bi fukki at yonent bi door a génn àdduna kon ci ñaar fukki atam la anas la am yonent bi génn àdduna ku ñëw xasan ibnu saabit ku mënoon a tagg yonent bi la ci xaadim yi la bokkoon ak Kaab ibnu Zuhayr Muhammadul Buusayri mii taalif Burdu fekkewul jamono yonent bi gàddaay gi dem na ba am junni at ak ñaar téeméer ak fukk ak benn mu door a gën a jamono fekkante naa Sëñ Tuubaa jamono Muhammadul Buusayri gisul yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Tuubaa bi muy door a jóg ñooñu rek lay ñaan mel ni ñoom wajaal maqaami maqaamal murtada anasin fi xidmatin wa ka xazaanin yow yàlla def ma ma mel ni anas def ma ma mel ni xazaan ibnu saabit waaye diir bu gàtt bi mu sooboo ci lëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bara anil xuduusu min kulli danas wa inda xayril xalq jaawastu anas xabu bu njëkk wi mooy yéeme muy bara anil xuduusu min kulli danas mooy yàlla setal na ma ci bépp taas sañ tubaa nee na lu tax nga def ko waroo ko woon a def lu la ko tax a def lii lu ñuy def nee na lu ci nekk musta dox sama diggante yàlla musuma def mel mbir moom ma artoo mos sa am sëñ sama borom mosu ne mukk na ma ba mu amaat mosuma wax mukkit lu tax nga def ko moo tax mbokkam ma Serigne Cheikh Coro moom sëñ Mor Sali dafa waxoon ne wa salimu min al afati jumlatiha wa ma nifaqan bi ma imanihi mazaja mu ne sëñ Tuubaa dafa set wicc ci bépp gàkk bépp taas am gëm yàlla goo xam nag dara kooju ko ci ak nafiq amul lu mu yàlla ndax wala si kullu waxtin fi ibadati man xabaahu jaxran bi fat fatin kulla martadaja waxtu wu nekk day wéetal jaamu borom amul lal bu muy tëdd du nelaw guddi lu mu guddi guddi bu nit ñiy nelaw mi ngi jàng alxuraan lal bu mu am alxuraan la cay teg wala xadis yonent bi alayhi salaatu salaam gaal gu mu am kazalika noona la koy def kanzil kitaabu wal xadisu wal adab laa jamxu fiddatin wala jamxu dahab bu guddee bu nit ñi nelaw sëñ Mbàkke Buso nee na fa kam min layaalin baataxal xaw xawsu taaliya ala suwari tartiir wal naa naayimu bari na guddi yooyu nit ñi dañuy nelaw bay yàndoor sëñ Tuubaa dinaa fi la loolu lañu sëñ Musaa di jàngal sëñ Musaa Ka radiyallaahu taala ku mat a bàyyi xel ay mbindam la di ko jàngat fi ne nit dana wax ci sëñ Tuubaa lu rëy ba nit jàpp boppam fekk waxi sëñ Musaa la dafa taye nekk di ko leeral rek mu nettali ko nit dar boppam fekk waxi Seex Musaa Ka la sëñ Moussa Ka dafa am tawfiix ci sëñ Touba dafa wax ne alam tara aynaaya xii sheyqi la wa kamaalan wa saara wasqi nee na samay gët mës da gis ku mel ni sëñ Touba ci ab taar ak mat sëñ Touba mag ñi ko gisoon dañuy wax ni ki gënoon a taaru ci àdduna mooy Cheikhul Khadim ndax boo toogee fi wetam loo baax baax yëg ne moo la gën a baax mu sa jëmm mel jëmmam daq ko te sëñ Moussa Ka nee na wa dax ko yëg zalaam boo toogee moom cib néeg bu lampi patafoor yi tëkkut bu nee kan nga mooñ rek day mel dañ fa tal lampi patafoor wa dax kooku yëjël zalaam nga xam ne ma xam ne mooñu sëñ Tuubaa rek day daq lëndam mu ne nag da daan muuru yor yetti kaala yu joor hmm. raawaan yaa ko daan féete wàllu nday joor bi muuraay gënee lam set sikkin ba ne laas di saf wurus moo ko jekk ay faas xeesut ba ne pecc fa fuddi aw ñuul yaram waa ko tax mel ni jaane ngolool fitam waa gën a rëy mel ni ëpp jàmbaar xàmmewul capitaine wareewul soldaar ci kun lay téléphone xel ma raw na DPS xolom baa gën a leer làmp bu jafal mees bu cër cëree nelaw it gët ya moom ma ngay xool bu nekkul di taalif it ma ngay yëri mool bu gët ya dee nelaw it ruuga dem aras moom xanaa war na ca alburax waxay zoom te lay laa du ko tee dem ca pays diiwaan paas yo ngeenu sàkkar di jaan lay naan loolu Cheikh Moussa Ka daf cee jàngale lu fees jàll loo xam ne mënuloo ko dégg ci xam ñàkk nawle sañ Touba moo tax benn naar boo mi ci téere bu tudd Karaamatu Cheikh Ahmadul Miski moo ko bind dafa wax ne xadimul Moustapha xawsul animi lisaanul xaali tashhadu lil qadimi bi misli cheikh lam nasma hadisa fala fi saali fi dahril qadimi nee na lisaanul xaal mooy seelee na ku mel ni sëñ Touba amul amul ci ñan ci niveau yi amul ci ñan ci ancien yi lu tax sëñ Touba hors série la hors mooy Cheikh Amadou Bamba bi misli cheikh lam nasma xadisa mooy les niveaux wala fi saalifi dahril xadimi mooy ancien yi lu tax sëñ bi moom moo waxal boppam ne hors série la ndax moo wax ne mat matxu nabiyi qaadalii maalam yura shakli wa fi daare ni shakli lan yura sëñ bi ne ku mel ni man kenn du ko teg bët àdduna yow mal xiyaam ku ni mel amul mooy hors série benn marque la rek lam yadri insul mislahu fi ma xawa wal kullu xaara li shanihi al loolu ni mu réyee am na ko wax lu ko gën a rëy ku ni wax annabahaani jàngati arab yi xam nañu ke gis jant bi ne gisuma ko nag ah kenn du ko wax dara ndax bu fekkee ne da ngaa jàng téere bi tudd jaami karamatul awliya yusuf ibn ismail annabahaani moo ko taalif xar baax yi wàllu yàlla yi rek ci ciy nettali jamonoonte na ak sëñ Touba ku mënoon a tagg yonent bi la ma nga dëkkoon Liban dañuy wax ne eggoon na ci bu sëppee xalimaam ci daa ngir tagg yonent bi sallallahu alayhi wa jox ko loxo bi bi nekkee ci géej gi nag dafa dugg xalwa laaj suñu borom na ko ndax kaw suuf am na ci ku tagg rasulullahi lu toll li ma ko tagg ne yonent bee ko tontu na ko. ku ñuy wax Ahmadou Bamba kenn jotul asakaam te sëriñ Bachirou Mbakke nee na naar bi ñu Abdallah al Tamkali yi laaj na sëñ Bachirou na ko waaw sa bàyyi sëñ Touba ndax li mu wax Rasulaay kenn wax na ko sëñ Bachirou na ko ma ne jaaxaloon na ma ba ma laaj ko sëñ bi waaye sëñ bi dana ma jaaxaloon na ba ma laaj ko sans boroom waaye dana ma amut ndax yaa leen gën a sellal. nabaxaan yi moomee nag. bi sëñ bi jógee ci géej gi ba ñëw njaareem dafa am jafe-jafe ay xaalis ca liban suñ borom dindi kiiraay yi dindil ko sëñ bi sëñ bi ne ca njaareem xam ne nabaxaani nga ca liban waaye am na jafe-jafe xaalis sëñ Tuubaa yónnee ko xaalis bu bari mu faj ci yitte ba noppi nag door a tàmbali ne tagg sëñ Tuubaa awa njaareemu uluman lil ilahi wa fadlan la yamunnu wal fadlu lil gayri mamnunu awal qadim alladi lawlahuma sujidat ala al jibahi walam tuqra bihi noonu inam inamra an faatahul muxtaari min mudaar wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuun mu ne njaareem dafa làmboo xam-xam ak ngëneelul yàlla lu dul jeex mooy sëñ Tuubaa daan na du dul woon ak Cheikh Ahmadou nag benn sajaada du am ganug jë te kenn du jàng alxuraan kon sëñ Tuubaa lawlaahuma sujidat alal jibaahi walam bi bihi noomu ba demee ca karaamatu cheikh ba fekk ci li ma lay mu ne in imra an faatahul muxtaari min mudaar ku fekkewut jamonoy rasulullahi mu raw la wafaatuhu xadimul muxtaar nga xoolee ba sëñ Tuubaa raw la max boodun ci nax nga nekk sooy nga lu yàlla yoroon rasulullahi la ko jox mu jox ko Cheikh Ahmadou Bamba loolu ànd ba ni ma ko wax kon sëñ Tuubaa moomu nag moo sañ a tibb lu ko neex joxe ko moom maam Mor Jaara borom Saam ñoo bokk soxna Jaaratullah bokk sëñ Mor Tësali maam jaar Jaara dina fi la téeméeri rakk sëñ Tuba ne ne ameelul ab jaam xaq ameelul boromam xaq sëñ Tuba woote mu jébbulu sëñ bi ne ko pays suñ borom yi fu ma dem fekk naa fa sa jëf waaye tey bii benn bis bu ma dem ci pays rek fekk naa fa sa nga xool ko mel ni maam Cerno Birahim jagle ko ko sëñ Tuba may juróom-ñett fukki at yu manqué ñeenti weer la dund ñaari yoon la ma tiim ba ma amee ndox fay na ko daana wax ne lu sëñ Tuubaa bëgg dana am man Cerno lu ma sant danaa ko def wala nga xool ma Massamba Mbacké bi di mu caat nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop nee na bu loolu sëñ Tuubaa sëñ Massamba ay gën ci ñun jamono lawlal xadiimu imaamul xasi xudwatina la kaana afdalu ahlul arsi kullihim nga door a xool nag seex Seydil Maxtaar borom jagle gu réy gi maam Cheikh Gaawaan dafa am jagle yu ko kenn fekkul ci Cheikhul Khadim te boo déggee lii ma la laltaayal jiital la ko ci ngay xame ni kii lu ko neex mën na ko maye lu ko sañ mën na koo maye ci nguuru yàlla gi te kenn mënu ci dara ba ci jëkk taw fii xam ma nga feeñi jamono dëkk bu ñuy wax poroxaan lu xewoon poroxaan moo di jihaat joojee màbba jëxu doon woote sëñ Mor Anta Sali demoon poroxaan googu fa la sëñ maam Cheikh Anta Gaawaan feeñee jamono ku sant Mbakke it moo ci jëkk a jébbalu ci Cheikh Ahmadou Bamba maam Cheikh Anta Gaawaan xam ngeen ne way juróom teel naa dégg ndey ndax soxna Anta Njaay ci boppam moo doy waar soxna Anta Njaay moo jëkk kër sëñ Mor Anta soxna Anta Ndiaye moo indi soxna jaaratullahi maam Mariama Bousso ci kër sëñ Mor Anta Sali bokk na ci jikkoom ju baax bay xaadima jaxate kala mas naa ñëw ne sëñ moor dama am sama jarbaat bu ma la bëgg a jox sëñ moor na ko man da yor naa ñeent soxna Anta dégg waxtaan wi daan na sëñ moor yéen loo leen doon waxtaanee mu ne ko ah dégg nga ko kay nee na dafa am ku ma bëgg a jox ma ne ko am naa ñeent mu ne ko loolu toxu may wax. ginnaaw jiitu naa kër jiitu naa ci kër gi yàgg fi dama bëgg nga yeewi ma may sa jaam ne ci kër gi di liggéey te kenn du ko xam nga jël kooku moo tax gis nga sëñ Moussa Ka na ko maam Anta Ndiaye wàcc na jur na bi yaaram jur ilimaan galliwuloo ci maaram ba muy xaatabanteeg soxna jaara lu mu wax danaa fi am jant ak weer jant bi mooy kan maam Cheikh Anta Gaawaan weer bi mooy kan Serigne Afia maam Cheikh Anta Gaawaan taw fii xam kon bokk na ci loolu Serigne Touba bu nu yóbboo maam Cheikh ci daara muy jànge alxuraan sëñ Ndam Abdourahman loo jàngal ko day dellusiwaat ci sëñ bi maam Mor Jaara jàngal na ko xam-xam Cheikhul Xadim jàngal na ko xam-xam waaye mu teel di santu sëñ Tuubaa moom maam Cheikh fu sëñ tubaa jëm mu jàpp ci genn fas wi am na bis am ko ko woon na ko yow kii di sa doomi baay rek di sa mbokk lu tax muy dem ngay jàpp ci genn fas wi mu ne ko jaral na ma sëñ Tuubaa woo ko mu ñu mu ne ko Cheikh kee lu mu doon wax mu ne ko dana ma fas wi ngay jàpp de mu ne ko loo ko tontu mu ne ko jaral na ma mu ne ko ndokk ba nga ko waxee loola. am na bi sëñ Tuubaa jóge fii ci Al jëm fii jumaay sëñ Cheikh Saliou ji nekk sëñ bi di dox lay bi fees dell tànk yi di tooy maam Cheikh Anta Gaawan daw romb ko jiitu sëñ Tuubaa tëdd ci lay bi di xalamu di bërëmu lay bi di jàpp ci mbubb mi ngir mbubb mi tooy tànki sëñ bi ba a tooy loolu maam Cheikh Anta Gaawan def na loolu. sunu borom may ko tawféex ju toll dëkk bi sëñ Tuubaa jëkk a sanc tudde ko Daaru Salaam maam Cheikh Anta Gaawaan la ko maye te dëkk boobee day sëñ Tuubaa ñaan na ci ñaan yu yéeme yu doy waar foofu la Cheikh Ibrahima Fall jëkk a amee ngërëmul Cheikh Ahmadou Bamba muy Daaru Salaam fii armée li yi nekk fii la nekk Cheikh Ibrahima Fall nekkoon Cheikh Ibrahima Fall foofu la doon tërbiyaa ba xëy bu tàbbee ci àllub daaru salaam bi day wax ne ah doom man de nu may def bu ma yoree sémmiñ wi bëgg gor garab mu tudd yàlla tudd rasulaay loola jaaxaluma waaye sama turu sang bi muy tudd moom ma jaaxal ndax ak garab mënut tudd turu sëñ Bàmba ma di ko gor fa la ko sëñ Tuubaa wooyee mu ñëw mu ne ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la ñëwal dem ndar deel dox guddi tey nopp lu ba cëkk daaru salaam googu la jëkk ràngoo ay garaat ak bidaay moom lay Ibrahima fal sëñ Tuubaa jël dëkk ba may ko ko boole kook juróom-ñeent fukki donga ak juróom-ñeent muy Desassine di 1304 la ko wam Wamsassine di 1306 wala doon 88 sëñ bi bàyyi fa dëkk ba dem sanc Daaru Salaam dem sanc Touba dëkk boobu fala fa la Cheikh Mahamadul Moustapha mi taawu Cheikh Amadou Bamba ganee jamono dëkk boobu it fa la Cheikh Mouhamadul Fadal gane jamono dëkk boobu lañu jox maam Cheikh Anta Gaawaan moo jëkk Cheikh ci yoonu murit maam Cheikh Anta Gaawaan moo jëkk Cheikh ci yoonu murit nga xam ne boo gisee baatub Cheikh bi muy Cheikh amul ñaar fukki at Sëñ may ko dëkk moo jëkk amul dëkk ci yoonu murit jëkk am mbooloo ku Sëñ Tuubaa seexalaat ñu ne seexal na ko de maanaam Cheikh antal na ko seexal na ko diw de sëñ bi de da koo seexal da koo seex antal moo jëkk a seex te sëñ Tuubaa dafa ko sa coono adduna mooy gestu gestu gestu àjjana la bàyyi ko àjjana ko sëñ Tuubaa masa seen danaan wa ma tawfiixi illa ko wax bu ko masa ma tawfiixi illa billah daana wax bu ma kenn xool ci seex ku ma ci xool ma ngir bëgg maam Seex Anta Gaawaan bi sëñ bi demee ci géej gi xam ngeen ni maam Cheikh Gaawaan ci yéemeem sunu borom may ni ko tawfiix yi mu fekki sëñ Tuubaa ci wàccaay wu jafe nag wàccaay woo xam ne système bu metti la maam Cheikh Gaawaan def ndax sëñ Tuubaa moo ko woolu sëñ Mat Lamin Loo Dagana bisub talaata la jóge kokki guy ba talaata ja dellusiwaat di 365 jours mu door a gis Cheikh Ahmadou Bamba bi mu laajtee sëñ Touba dañu ne ko gëj nañu koo gis ca xurwee de diirub daaw ba ren maam Cheikh Anta Gaaw xam ngeen ne bi muy ñëw fi mu fekk sëñ Modou Lo Dagana fi mu fekk sëñ Touba bokku la fi maam Cheikh Anta Gaawaan fekk sëñ Touba maam Cheikh Anta Gaawaan fi mu fekk sëñ Touba fa la sëñ bi taalifee naa sukuura la débil kaafi woon noonu te defoon fa néegam bu xat boobu nga xam ne garga mboose yi da koo wër bu sëñ Tuubaa jëmee ci néeg bi dangay ngay seen weexaayu garga mboose gi ndax lonk gi ñuy lonk mbubbi sëñ Tuubaa yi néegam yooyee la natt jox buum nga maam Cheikh Anta Gaawaan na ko joxal ma ko cerno na ma sancal guy tàggoo ko Daarul Manaan mooy Daarul Manaan gii sëñ Tuubaa wàccoon guy tàggoo la tuddoon keroog bi maam sëñ Mat Lamin Lo dagg na nuyoo sëñ Tuubaa dana ko Moodu mu ne ko Mbakke mu ne ko ana Cheikh mu ne ko ma nga fa mu ne ko ana carma mu ne ko mbag ma fa mu ne ko cheikh de gërëm naa ko sëñ Mor Lo la muy a teg mu ne ko ndax moom ma jëkk a topp samay bokk cheikh de gërëm naa ko sëñ Mor Lo da nga nee na keroog jaaxle naa ndax maam Thierno mag maam Cheikh Anta ma jékki-jékki sëgg daan na di wax naan ah maam na sëñ bi fëgg sama bopp na ma Thierno day noonu seetlu wax juree jooju ana cheikh gërëm naa ko moom ma jëkk topp samay na ko demal wooyee leen ko xasaayit yi nii jàng ci yoonu murit ki njëkk a mool xasaayit ci kaw suuf mooy maam Cheikh Anta Gaawaan bi mu demee fekki sëñ Tuubaa ci géej gi xaside yi sëñ Tuubaa jëkkoon a bind yëpp maam Cheikh Anta Gaawaan la ko jox maam Cheikh njëkk a jàng maam Cheikh Anta na ko mool ci waaye li gën a yéeme mooy bi maam Cheikh Anta Gaawaan nuyoo sëñ Tuubaa lu ko sëñ Tuubaa wax dana ko Cheikh Rasulullaah ma wax ne Cheikh a ngi ñëw. rasulullah yi ma yëgal sa néew daan na ko lal bii ci la toogoon bu la neexee ma won la ko maam Cheikh Anta gaawaan na ko déedéet gis ko ma gis la yow gis ko rek man ma gis la lal boobu yonent bi toogoon ca Gabon ca lañ teg soxna Anta Ndiaye denc ko ci dëkkale bi mu génnee àdduna lal boobu soxna Anta Ndiaye am na tawféex yi lal boobu ca lañ ko teg denc ko ca dëkkale maam Cheikh na ko gis ko rek yow man ma gis la mu waxtaane fa ak Serigne Touba waxtaan yu yéeme. natt lu fa néegam ya indaale buum yi sëñ Tuubaa daal di koy wax ca gabam na ko cheikh rasulullahi ne yaay yor sama saayir mu yor sama baatin loolu sëñ Tuubaa ko wax maam Cheikh Anta Gaawaan na ko rasulullahi ne yoral sama saayir mu yor sama baatin maam Cheikh Anta Gaawaan sax ci loolu xam ngeen ne am na tawféex bi sëñ Tuubaa jógee ci giir gi moom la woolu xam nga foofu dafa am diggante bu yéeme yi ma koy gëstu di ci waxtaan ak sama magum taalibe Fallou Gala Sylla émission boobu keroog damay jooy ba mënuma koo déglu te man maa doon def émission bi keroog mu may nettali maam Cheikh Anta Gaawaan nga xam ne dama ne ko mënuma supporter maam Cheikh Anta ngir yi ko sëñ Tuubaa jaral moo bari bi sëñ Tuubaa di ñibbisi 1902. nga xam ne mag ñi yëguñu woon ne sëñ bi day ñëw te sëñ bi waxutoon ne day ñëw ndax tubaab yi dañ ko bëggoon a yóbbu Madagascar ki njëkk a turé ne sëñ Tuubaa day ñëw ñëw na mooy maam Saliou Fall ndax booba moo fii Lambinaas moo ko moomoon jox ko Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall jox ko sëñ Tuubaa addiye sëñ Tuubaa boole ko maam Cheikh Anta Gaawaan ak sëñ Balla Coro sëñ maam Cheikh Anta Gaawaan bàyyee sëñ Balla Coro wàllam. sëñ Balla Coro ñoo ko jaay fonction publique maam Saliou Fall mooy dox ci waax bi ba yàgg tànk yi luf jaxasoo mu ne doom xoolal leen ma ba xam sëñ Bamba daa ñëw maa ngi daw ñëw ci paal port bi laaj renseignement ñu ne leen bato bii de ci la ba ma nekk ñu ñu wax ko ko mu ne ah doom looloo mën a am bi sama tànk yi jaxasoo rek laa xam ne sëñ Bamba nga ci kaw suuf si ku dul sëñ Bamba mënoo jaxas sama tànk yi ñi amoon tawféexi fekke ko bari na ñu ni ciy tudd nag fekkewuñu ko woon ndax ñëwunu waaye tawféex ji daal moom am na mag ñu ko fekke bi ñuy séentu bata bi mu taxaw ab diir mag ñi seen pud dafa wow koŋ mënuñoo wanaasu mënuñoo toog mënuñoo taxaw ndax yàkkamte gis sëñ Tuubaa te xamuñu nu mu ñu ne ndax mu ngi dund wala ban cicatrice lay indaale sëñ bi daal mënta ñàkk manqué benn cër ndax ni mu yàggee ci nasaraan gannaaw bind lañ ay lettre wax ne faatu naag lu ne xam ngeen ne bi capitaine bi ubbee bato bi dox ci escalier yi ba xaajale dafa laajte uye Cheikh Anta ñu ne wuyul sëñ Touba mu ne bërit luf ak escalier yi lu yéemee ngi ci maam Cheikh Anta Gaawaan nee na bi mu ne mikk yam ci sëñ Tuubaa dana ko xinet na ko Cheikh dem naa ba ñëw nee na bis boobu moo leen dàqal tàbbi àjjana Cheikh dem naa ba ñëw ndax kenn mësu ko wax Cheikh mu ne ko mbakki mu ne ko dem naa ba ñëw Cheikh mu ne mbakki mu ne ko lewil ma wey maam Cheikh Anta Gaawaan mënta lewi wey sëñ Tuubaa yi ndax di tuur ay xéewal rongoñ ñu sotti ko rek mu ne ko Cheikh mu ne ko mbakki mu ne ko yàlla bég na rasul lay bég na da ngeen bég mu ne ko mbàkke mu ne ko topp leen sama mbóor dem naa ba ñëw defuma lu ñaaw waxuma ko cheikh mu ne ko mbàkke mu ne ko lu des ci àdduna lu fi waay amati borom loxo lu tuut lii moo ko lëg lu fii yadayhi wa fii yadayhi lahu manun wa anta alladi sirta lil akwaani waasitatan toxtil jamia wa rabbal arsi yoxtika yàlla duutul dataay ak ngóoro rek te sëñ Tuubaa lay wàcceel comme jaay doo am anta alladi sirta lil akwaani waasitatan te waxal na boppam ci li Maahil Bachir Maahil Bachir lu mu ca wax yamini ala al aadaai sayfun muhannadun fa man lam yusalim nii yemul woo sooxi sama ndeyjoor bi moo raw jël si jur rocc ca tubaab ya ku ma jëmmalul da nga dee da nga am gàcce ba ma leen ci dumaa ba noppi yàlla dana ma tàllal ma tàllal mu ne ma simaamu sawil islaami fii ah koy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah bënn naa sa nos teg ko sa loxo sëñ bi ne fa man abaa mukkuse fii duniyaa aussi la ma alxis yi ku bañ ma ne fi sax fi da torox da am gàcce am tawféexi moom daaru salaam am tawféexi gàttandu sëñ Touba ndax ca la tawféexi yam déedéet sëriñ Touba wéyalaat ci Cheikh Sidiyel Mokhtar maam Cheikh Anta Gaawaan maam Cheikh Gaawaan lim def ci atum 1914 kuy am barkeeg alal ci Sénégal Cheikh Anta la moo la ëppi oto moo la ëpp alal dundal na néew doole yi 1914 am na conteneur ceeb boo xam ne 12500 tonnes 12500 tonnes yi ceeb la Cheikh Anta séddale réew mi cent tonnes la Cheikh Anta séddale am na jàkka yoo xam ne Cheikh Anta ko defar yeggale ko ci réew mii da koy romb sax déggale kaw ci ngeen xam ngeen ko sax yéen yéen a ngi jënd moo tax bu ñuy def sëñ Tuubaa moroom ay ree daf may jàpp ndax bu ñu leen tegoon ci balaas teg cheikh rek cheikh wat leen waaw hmm? hmm? ah. yàlla xam na ko douze mille cinq cent tonnes ba noppi fekk jàkka yu ñu tayale mu tayerti ko yeggale ko toggal dëkk ba añ Cheikh Rafal romb ko fa daanaa ah, doom kii ko wuñu na Cheikh Anta mu nañ ko toggal añ fii réew mii yépp ñoo ñu toj nañu ko moo tax léegi léeg ma seetaan ci tele bi ndaw lu jàngi ba ñëw te kenn yaru ko xamul li xew. Hmm. muy dugg ci suñuy mën yi mën yi di jéem a manipuler la nga naan ko yamal fu sa tànk yegg rek tànk sut ko gars yi dañuy bàggante Bordeaux ak Nantes di seet ci fi gën a kawe di xam bagage yi di ko téye garde ko téye ko archive yaa ngi nii boo demee ci archive nationale gars yi ñuy coow ñëpp wóor la jëmmi Cheikh Amadou Bamba benn paas lañ am Sëñ Tuubaa 41 carnet la am barke Cheikh moo tax waykat bi ne leen Seex Bamba mooy kaamil bu mat sëriñ si di fooyee gi xët ñi di sumun ba duñ ko mat <laughs> gëstu yaa ngi fii demal fii gëstu ci kii war ko boo ko xoolee danga ko xam boo ko gëstoo lañ ko bind am ko Seex Anta naa wax nañ ma jaay alice ah góornóor bindoon décret bi mois de juin teg sëñ Tuubaa ay tuuma mu ne nañ ma ko jaay ñu ne ko loo koy doyee mu ne rendi ko ñu ne ko loo tax mu ne daa bañ sëñ Tuubaa <laughs> dafa bëggoon Sëriñ Tuubaa moom Cheikh am na bis sëñ Tuubaa na mag ñi kenn ku ne na dem ca la muy fanaan bu xëyee ñëw wax ma ko nit ñépp xëyandoo ku ñëw na naafile na ab kaamil téeméeri rakk laa julli julli naa fukki rakk ak ñaar nangam laa doon def xasida laa doon jàng dama doon sikkar kenn ku ne wax lam def sëñ Tuubaa na ko Cheikh loo def mu ne ko xanaa reer ba rek na barke borom Tuubaa daal di tëdd waaw am Cheikh Anta dafa amoon mbaay yàlla ci sëñ Tuubaa maam Cheikh Gaawaan moo tax jagle googu wëy xam ngeen ne amoon na ci kër sëñ Touba sëñ Moodu Awa Balla amoon na ci sëñ Moodu Masamba Diop Saam amoon na ca sëñ Moodu Cheikh sëñ Moodu Cheikh mooy sëñ Moodu sëñ Moodu Cheikh lañ ko doon wax sëñ Moodu Cheikh lañ ko doon wax. lu indi al maamuun al maamuunul dafa am ca gànnaar bis gànnaar sëñ Moodu Maamun la sëñ Tuubaa dénkoon seel yi ak baraay bi te booba xiif bi egg nañ ci di sotti ndox ci jànj di ko lekk nga bu pepp am na ñoo xam ne xooxi buy lañ wowal ba mu wow yóbbu ko gànnaar di ko yëy ngir ñàkk luñ lekk sëñ Tuubaa jël seel yi ak baraay bi dénk ko sëñ Moodu Maamun danaan ko demal muudu jox la demal muudu nattal la benn bi sëñ Tuubaa ñëw na ko muudu fu dund bi toll mu ne ko ah xaw ma ne ab dund fi nekk de mu ne ko gisoo li fi ne mu ne ko déedéet mu ne ko ubbil ma magasin bi sëñ Moodu Maamun ubbil ko sëñ Tuubaa dugg na ko lii ma fi denc mooy seere ne bëtu Moodu Maamun mosu cee tege maanaam ay chel ci jamonoy gànnaar xiif bu metti moom xanaa boo tibbalee kenn sax mën caa daggaale dara waaye gisu ko sax Sëriñ Tuubaa wax ci gànnaar ne nañu ma wargaal te ko amul bakkaar na ma war gaal kenn ku nekk nan ah waaw kan moo amul bakkaar mu ne ana mudu maamun xanaa néew fi amul bakkaar dañ ko mbay yàlla nga xam ne sëñ mudu am na tawféex ju toll nii ku ko liggéeyal teg tànkam ku fa teg sa tànk ku sa bëtam sa yaram araam ngir mbaa yàlla sëñ Tuubaa boobu dafa Cheikh Mahamadul Maamun mu nekk melow nag wii Cheikh maam si Sidi Muxtaar am Cheikh Gaawaan nga xam ne boo demoon kër sëñ Maam Mor Jaara noonu la meloon moom ni mu xarite woon ak Cheikh Ibrahima Fall ma ne su ko misaal ku ñuy wax sëñ Cheikh Bousso sëñ Cheikh Bousso dafa tar mooy taawu sëñ Bousso bi daawul naan soow Cheikh Omar Fouti Tall lañ naan mook way juróom ma soxna jaara bokk lépp daawul naan soow nee na ndax li tax du ko naan mooy nag wi ñu ko rattee moom laa xamul ba xam lekk nam ruur wala lekkutum ruur ginnaaw xuma lekk nam ruur wala lekkutum ruur naa bàyyi am soow mu ñëw gane si maam Cheikh Anta Gaawaan nag maam Cheikh Anta Gaawaan bu set mu ko Cheikh sa gàtt yii de ëllëg yomal xiyaam daan la ko laaj wax sëñ Cheikh bu si wax ko maam Cheikh Ndaka nag ah kon de bu ma ci defaratee jox la cib tànk ndax yow ginnaaw mën ngaa wax bu yomal xiyaam bu yàlla laajee nga tontul ma <laughs> am da féex nga xam ne diirub mi ngi dund saa yu defaree gàtt dana yónnee tànk sëñ Cheikh bu su naan ko ah ndax bu ëllëgee nga bu la ci laajee nga waxal ma ko <laughs> xoolal ñooñu ni ñuy mel ni ñuy dund. boo demee diggante ba maam Thierno na sëñ Cheikh Awa bala sama sëriñ yaa xafaara dunu moom lañ ko tuddee te daana wax ne sëñ Touba xëyewul kenn gonte ma maam Cheikh dañ koy jaay ab oto tubaab bi di ko jaay Cheikh Awa jënd oto bi bi ko jëndee nag jëm kër Sàmba jaar gaawaan maam Cheikh seen ko daan waaw tubaab yi de xam naa li ñuy jaay kenn du ko jënd ko dul man eh. sëñ Cheikh Awa ñëw wàcc mu ne ko Cheikh da ngay sàcc sama xaalis bu mag ji rek xaalis bu na bi rek ngay sàcc Cheikh Abal na ko maa ngi dem kër Samba mu ne ko bala neexee jàll kër Demba ah, man ngaa nga xam ne dafa féex maam Cheikh Anta Gaawaan te loolu lépp ci cadre gëm sëñ Tuubaa la ko doon ndox maanaam ni maam Cheikh Anta doon dundee noonu la murit gi war di dundee fi ne murit day dund no stress haine yii day tax am murit bu dee haine day ñaaw. day gàttalu fan day tax a fi ne bari na ku naan dama fatigué fekk en baaxul ay sidit lay lay lay murit dafa war a féex am xar kanam bu bel am jàmm hmm? maam Cheikh Anta Diagne gisoo ko ni mel gisoo Daaru Salaam boo seetloo Daaru Salaam adduna bi bu doon mbooyoo ka tàkkit Daaru Salaam yëgul ne dara ngi am ndax bi sëñ Tuubaa buufee ci seen i xol la ñopp ci lépp te loolu mooy fulla ku jëkk a jox sëñ lu million sëñ Modou Mamoun lu mu ca boole albert jëkk a jébbal sëñ Fallu addiyee million ba noppi teg ci almet boo demee kër sëñ Fallu fekk fa seex Mahamadul Mamoun Cheikh Abdou Lahad ñaari Cheikh Mahamadul Mamoun sëñ Modou Mamoun mel ni mi sama xarit la tudde naa ko doom moom sëñ Abdou Lahad nga xam ne ñaari doom tudde na ko ko moom Cheikh xoola ci biir yoonu murit fépp te bari na te kat na nga ci xamaale lenn sëñ Modou Mamoun suñu laat mi dafa may wax na ma ma ne ko sëñ bi da ngaa tàng mu ne ma kilifa ga laa ko nur woon ma ne ko ah sëñ Modou Mamoun dañuy wax ne tàngut mu ne ma ah bari na lu ñàkk rek la ci yoon wi de ba nga fi daan dégg borom yi fit yooyu jéem a pour ma sa séen sëñ Modou ma taalibe gaag wayaf gaag joxe addiye ga ful la jë ak fit waa ko rawoon ful la jë ak fit wa lu bari mu taxawu ko moom Cheikh Mamadou Mamoun. loolu la ndaw ñi war a jàng ci sëñ Touba ndax loolu bu ñu ko defee ak fàttaliku du jeex ñoom pas-pas ak passif lañ doon dund xam nga bàyyi sa bopp jël sa doom yi bàyyi yaakaar ko di ko raamal di ko xalangul mu tibbal la yewit lu dul jeex nañuy def sëñ Modou Moustapha la ñuy def sëñ Modou Mamoun nañuy def doom doomi sëñ Touba la ñuy def doomi Maam Cheikh Anta Gaawaan nañuy defu fu sëtam la ñuy def fu sëtam sëñ Touba ñëw indi defar googu séddale ko ci àdduna bi ñëpp jar ko te ñoom ñoo wette woon ñàq wala liggéey loola te loolu li gën a yéeme mooy yu baax yooyu ñu daan def nit ñi duñ ko wax léegi nit ñi dañoo yegg ci euh, ab bëggu dendalee ki ay concurrence ak xam nga télé yi daa bari ak rajo yi te nit ñi lu ñuy wax amatuñ lu ñu wax dañoo wax ba jeexal di léeb ak di waxi caaxaan ak i tappale ah bi loolu amee. tey jii kat nga déggagul dañoo waroon a indi tey ñiy wax social ñoo naan diw bu koor ngi ñëwee nga gis ku jënd ñeenti mbuus yi suukar ñaari mbuus yi tàngal boole ci tàndarma ñu génne ci tele bi diw day defal ndog mais douze mille cinq cent tonnes nga jox ko mu réew ci jamono boobu boo ko doon boo ko doon këlkinaat ñaata tonnes yi ceeb lay doon ñaata milliards la Cheikh Anta defoon. te moom xamu ci xëj ak seen publier wu ko waxul lii waxul lii waxul lii da koy def te jëmm yàlla tax. romb néegub yàlla moo xam ne ñii ay a ko bëgg seen kattan mayu leen ko mu lijjanti ko bañ am lañ bëgg léegi ku fa sujjuutati jaamu yàlla bu la neexee bu la naqaree dana danga am lu ca bàyyi ko tabbi ci biir kortu Cheikh Sidi Muxtaar maam Cheikh Gaawaan yu baax yooyu buñ ko royatut ci àdduna mag ñu baax ñi royatuñ leen seen jikko ya seen taalibe ga seen baax ga seen yiw ga ana lan la lan la ñuy jariñ lan la ñuy def noonu ci àdduna bi lan lañ fiy def bu fekkee ne royatuñ mela yu baax yooyu tey maam Cheikh Anta sëñ Modou Mamoun boo koy tagg looy wax am na ngërëm fa Cheikhul Qadimi dellu ko am ca baayam bi taq taqdimi fi ne bu fekkoon ne sëñ Modou Mamoun maam Cheikh Anta Gaawaan juru ko ab lay doon cheikhu boppam la ndax liggéeyal na boppam ci kër sëñ Touba saa yu sëñ Touba ma sa wax sama yi rek ñooñu lay wax sëñ Modou Mamoun ak sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Modou Massamba Diop Samb nag ñooñu liggéey boobu mu liggéey la muy rëy rëy ñu liggéey ko ci maam Cheikh Anta Gaawaan maam Cheikh Gaawaan liggéey ko di teral Sëñ Tuubaa di ko ganale ba jël nit tëral ko ngir ganalee ko Sëñ Tuubaa waaye xam nga Daaru Salaam duñ tàggoo teraanga te am na ci ñoo xam ne fi ne duñ teral kenn bañ ne ko bu leen sëriñ dee gane sax dañuy moytandiku murit mooy aji gëm ju dul sàkk lu may ngërëmul yàlla muraad mooy ki sëñ bi namm mayit mooy ku téppërle ma riirandoo mooy koo xam ne bu ñuy réew mu ñëw dàq coow bu ñuy wax mu naan accoon liggéey bi te du joxe dara dara du ko def kooku mooy ma riirandoo murit bi kon jëf ji bu nu ko defee ci sëñ Touba li nu sëñ Touba dël digg nu ko kenn mënta te ñu jot ci te yéenante jàmm lu waaye yéene boppam na ko yéene moroomam boo nee Baay Faal xoolal Cheikh Ibrahima Fall da daan sol baxa palmaan sol maylu sotti ko gët di sikkar ba mu fenn ci kawam moo gënoon a silwee si àdduna Cheikh Ibrahima mosaan a tëll njéeréem am na ñoon leer leen di gann ba dañuy daanu ci ñu sëñ Tuubaa mujj gërëm ci la bokk gaaw bi ko sëñ Tuubaa gërëmee dimanche ci sëñ Tuubaa dafa fatu da ko wóolu ba mu ñu mën a ko Ibrahima Fall gërëm naa la gërëm naa la gërëm naa la Baay Fall day set sëñ Tuubaa daawul tudd Cheikh Ibrahima Fall daawul tudd turu sëñ Tuubaa te jàpput léegi fu ne la ñuy tudd sëñ Touba noonu la ñuy tuddee sëñ Touba ab murit dafa war a silwise di sangutu jël ci temps patax patax ji yàkkamti gi ab murit moomu ko gannaaw yow ndaje mu ñëw nga war a ñëw te mbooloo mi day xat del set boo ko defut da nga nuy déranger ab murit day set yaram bi sëñ bee moom jëlal sa temps xasida yi wutal ko béréb wutal ko waxtu boo noppee liggéey yi yoon wi dañuy liggéey ñu bari liggéeyu dañuy wan rek. ba wax mu ne sëñ bee ma teral teraa ngay sëñ tubaay xéewali sëñ tubaay sëñ tubaay damaa teral joo xam ne lu nit di moom loo moom amut bu dee wata mooy teraa ngay sëñ tubaa footballkat yi nag sàcc si nag jaaykati dorog yi nag ñiy jaay seen bopp na yor nañuy wata yori kër sëñ tubaa nee na barke mooy bu nee la domm ci bàmmeel say nga mënal sa bopp barke du yii ndax kat bu dee ne oto bu rëy mooy moo tax nga am ngërëmul sëñ tubaa am na ko oto bu rëy la ko amee ku ne la woon ko doo ko doon ngërëmul yàlla ay caaxaan bu ko maye kon nañ jàpp ci sëñ bi te def lañu sëñ Fallu waxoon nee na sëñ Tuubaa dañ naan ko dikk na ko nankutum na ko katiiw na ko trawlis soxna yi da ngeen roy soxna Anta Njaay nee naa la soxna Anta Njaay nee na sëñ Moor yewi ma ma ne ci kër gi di sab jaam nga jël kii mu ñëw soxna Anta Njaay loolu la waxoon de yewi ma léegi nag jigéen ju ne du fi amee ndeysaan xoolal nit ñi bëgg nañoo baax yàlla saa ngi taw nit ñaa ngi amu jiw waaye suuf su baax suñ ji lañ amut jigéen ñu baax ñi ñooy jur doom ju baax ëllëg ak a neex doom ju baax jaar na lu ne te néegub sëy bu ne ñaari njoowaan a fa nekk njoowaanu wurus ak njoowaan gu dagg te ami xaaxaam boo ñëwee tëdd ci njoowaan wurus gi ñu dee la joow koo jur ca basan gu dagg la jëm te bànneexoo sa boroom kër nag ci loo bëgg mu defal la ko boo ëllëgee nga jur ku ni yónni dara jaru ko ànd ak say nawle da cib teen ñu yor goj nga yor goj ñu yor baag nga yor baax rootoo lu may di seetaan bal ñëw ca kër gi nga ne may leen ma naan ana lu ko jar napp sa boroom kër ci won ko taar sëñ Moussa Ka dafa wax ne jigéen ju mer loob sëriñam ci làmmiñam feeñ mer ma siixut yàlla mabbu nay jëfam diiru juróom-ñaar fukki at lu mu jaam yàlla du nangu lool dee ko raam gis nga télé yii am na ci ñooñ jëruñoo déglu jëruñoo seetaan euh, gis naa ci débat boo xam ne nii nee naa waajooju danaa dem ba ca moom ndax moom daa réew koo dégg muy contre liggéeyub ndey gëmal ne ndeyam liggéeyu liggéeyub ndey ku koy contre rek ndeyam liggéeyu sëñ Tuubaa ni mu toll bu naan wala tarumi taatallaahi bi la taati zawjika taqi sil la bul sàkk mukk ngërëmul yàlla te jaarewu ko ci ngërëmul sa borom kër bu ragal yàlla daan na bu yàlla bu sa borom kër gërëmee yàlla gërëm yonent bi dane isa sallatil maratu xamsaha wa saamat zahraha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha jigéen bu wooree kooram julli julliim sàmm pëyam topp borom këram nan naan ko xoola ci bunt àjjana yi bu la neex nga tàbb ci lu tax ñu boole ci wa ataxat zawjaha ñu dem ba léegi ñu ne góor jigéen mënta ram góor mënta ramu jigéen jamono yi moom sa bopp droit de l'homme droit de l'enfant droit de la femme bu njëkk bàyyi day jiitu yaay topp ci doom topp ci bu njëkk bàyyee jiitu lu mu wax yaay ji na ko lu sa bàyyi wax laa wax léegi doom jiy jiitu boo mënee dara yaay jiitu loo wax sa yaay ànd ak yow ñu kumpaloo sa baay am na bàyyi ne ci kër gi yoo xam ne seetaan télé képp la ñuy méccoo amuñu baay lu neex seen doom moo leen neex te baay bi amul baax yow fooy jëlee barke boo ëllëgee nag boo demee ba des ci sa ëtt bëgg am barke foo koy jëlee doom ñett la koo xam ne bu sonnee am bu sonnul am ak koo xam ne bu sonnee am bu sonnul du am ak koo xam ne sonn ak bañ a sonn du am jigéen ju mel na war a mel borom kër gi wàcc ca ngoon nga daw gàttandoo tàng ndox may ko sukk ci kanamam ci sàll ba sonnoo ndaka liggéey bi man ne wéetoon naa namoon naa la bi nga demee ba léegi dama tuuranke waajal ko jox ko xéewal mu xéewlu mu sàkku la fekki ko bu fekk si la ku ca juddoo bu wutee am bu am waaye sa boroom kër ne cëpp nga ne mel naan mi may ko mu naan eh, mu naan mu naan nga ñëw fekk ko ci saal bi guddee nga de ceeb bi dafa jeex andi nañ facture bi gaz bi jeex na ordonnance gone yaa ngi nii sama yaay sax yónnee woon na fi démb sama natt ba sa bopp di bëgg a toj mu jël ceeb bi na la ko déj nga ma suuti da nga lekkuta nga naa mën a yow la rek lu leer laa lay wax li may wax lu ma dund la ba ko xam ñaari yi moom yàlla may na ma ci expérience ay soxna ak tabax dama ko teel a def xam soxna moom dama cee teel a localisé di jënd ci liñ ci war a am rek pare ci jéggi leen teg ne xam ne moom noppalu naa ci affaire soxna moom pare naa ci di ko wut rek dafay indi sala sala ndax xale da ngay fexe liñ ci digal da nga wut ko jàppale ndax bu benn boo dee ngoro déggalu la xale wala li ma fi waxoon son fan mu toll mag mu bi jaaw am gànnaame seen bi waxtaan wala daaru ji yor bi jaaw gone gu ndaw man laa wax sëñ bi wala ku baax yaaram sang bi delloo la ci mboot naan la bébé jii manque respect la ko jël ci ëllëg bébé magum jëmm man imaam yi jàkk wóoyewul la dara lu may bébé sëñ bi ne fi yaaram ne fi ku tedd ki ne fi sang bi ne fi ah ñu ne ko fi teg luñ ci jublu mooy minimiser la ak foyee la ndax biñ lay wax day dir ci ñoom jigéen moom boppam buy dem du tàggoo lan mooy taarub jigéen ziinatul bint al adab les politiques de la seen fii toujours di ne sa la jigéen taaram mooy teggin ñu egg ci jamono yi moom sa bopp jamono yi lu neex di def jamono yu jigéen xamul fu muy jaar bu ne soxna jaaral nga ne amul moroom nga gis ko dagg biis dem poroxaan te bi muy dem daa xas borom kër yegg di wër barab bi soxna sa naan la sori ma man loolu awma ko woon te soxna jaara foofee mu tëdd ca poroxaan tey doonu toon kër ga aw métit wu tar moo ko dal nu ngut a jàmbat ci kanam sëñ Mor Anta Sali mu fa mooy wàcce liggéey ci kaw tànk soxna Faty Issa tabbi na ci teem lu ne soxna Jaara def na ko yow nga ne moom ngay tuddoo ñu toll ci jamono joo xam ne nit day moom boppam léegi jigéen joone sëñ ba jaxate nee na ndaw su fi bañ góor te bëgg nag góor mat naa fexee doon ngir bëgg na mooy jigéen ju bañ góor na jéem muñ góor bu fun ko bañ góor te bëgg ab sëy ne la kaay ma takk la nga ne gone la damay jàng du ma yàq sama njàng sëy dafa teel ba noppi sa borom kër bu nopp xale yu jigéen ñaa ngi nii koo ci wu ñaari yoon du la dégg fi ne tempa yëpp yàqu ñenn ñi seen baaraam yi ñi seen i nopp koo ne diw faatee du la dégg faaw woo ko ñaari yoon nopp yi casque yi di fi jóg téléphone yi di fi jóg tubaab bi yombalal leen ko nag waaju amul dara te jigéen sax moom daa war a am maanaa seet ko am maanaa man dëre mu ne ci koñ bu liggéey benn jiir la yor di ko ruggi ki des koros amoo classe bu toll ni seet ñi am personnalité day wax ak ñoom muy moom du liggéey mën nay woote téléphone ba 4 heures bu xëyee di rënd mën a ngi toog bunoo booy yaa ngi toog jasmaan amul jom yow seet ko am maanaa loolu da ma jéggal nag waaye borom ah, nit day am fulla ci boppam ay bandari ñu taxawal mënut a seere boppam du liggéey du def dara guddi gi téléphone lay wétali ko 5 heures lay tëdd yeewu midi desi ceeb yeeg day dugg ci waañ ñu xool café gum góox ak bu na jël sa temps ba jara bàyyi sa bàyyi baa nga sa yaay lu ko jar boo ko toppee ëllëg mënul dara doo lay la jox surtout Ndakaaru bu dëgër bi nga xam ne dañ ci a boole bu yees Grand Touba sax yow moom mën nañoo may kër nga dafa ñaari nekk waaye sëñ Babacar maa ngi leen di gërëm sëñ bi Omar Kane di ñëw nag maa ngi leen siyaare baax sëñ bi bëri ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. tey dégg nañu loo xamante bi ci sëñ Gana tooyal na sunu xel te bégal dënnu ndax Gana dafa pédagogue pédagogue mooy danga ngaa a wax ci diine te mën a yare ci àdduna sëñ Gana jërëjëfati sunu xol set na lool olof day wax na ñaar mën nañoo seere mooy ki bëgg ak ki bañ Gana toogal pare gu ma damaa bëgg nga toog ki bëgg mënta seere ndax day ëppal ki bañit kazalika koo tax mënuma laa seere ndax da ngay sopp sama soppe bu yàgg lool nga ëmbal ma cofeel ma ëmbal la ko moo tax mënuma laa seere loolu ñaan la sama borom ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla guddal sa fan wi lool te barkeel sa bépp jëf boo jëf sunu xol sedd na lool ma bëgg ñun ñooy waa Daaru Salaam ñoo wowoon Gana Messere ngir mu bégal nu Gana nag wàcc na ndax bégal na nu ma bëgg nun waa Daaru Salaam it nu bëggal gànna ma bëgg kenn ku ne fekk ma fii essence bi gànna di ñibbee Touba ma def ko jotoom bu ma kenn jox pièce bugguma ko nañ ma fekk fi ak i këyit ma yeewi gànna waaw na ñëpp ñëw waaw leen góor góor ak jigéen laa ci wax nag waaw góor ak jigéen laa wax de na ma ñëpp fekk fii waaw